ñu teew ci kër sëriñ Bassirou ngir siyaar ko ci bis bii nga xam ni bis la boo xam ne mm, noo nun ak moom ñoo ko bokk ndax dañ koo bokk ci fànn yu bari ndax wax naa ko léegi diggante Serigne Baara ak Serigne Abdul Xaadir ñëpp xamoon na ko te it njabootu Serigne Baara gi fi nekkoon jamonoon teeg moom jëflante woon nañ kook moom ba ñëpp xam ko itam wante njabootu Serigne Abdou Khadir gi nga xam ne ñoo fi nekkit tombe ak Cheikh Sidi Muxtaar jëflante nañ kook moom itam ba nga xam ne ñëpp xam na ko rawatina nag sëriñ Basiru ma xam ne sëriñ bi daf ko jëloon teg ko ci kanamam ni ko yaay samay tànk yaay samay loxo yaay sama bët ak yëpp mu mu taxaw ko taxawaay bu mat sëkk sëriñ bi itam taxaw ci gannaawam taxawaay bu taxaw ci kanamam taxawaay bu mat sëkk mu doon ànd boo xam ne àndum ngor la àndum jiine la waaye àndu mbokk la itam bi nga xamee ne yàlla dogal na sëriñ bi ñibbi itam wàcc ab liggéey bàyyi fi njaboot gi njaboot googee génnewul loxoom benn yoon ci ñoom moo waral teewaay bi nga xam ni booy xool néeg bi tey ñi fi nekk ñëpp foofa la ñu bàyyi ko kon loolu daf lay won rek ne relation yooyu nga xam ne mag ñi jëmbatoon nañ ko mu tàmbalee ci sëñ Abdou Khadir ak sëriñ Baara ba wàcc si ci njabootu sëriñ Baara ak ak ak ak sëriñ Baara gi ak sëñ Abdou waaye wàcc si ci njabootu sëñ Abdou Khadir ak sëriñ siidu Muxtaar loole njëmbat loole ñu ngi koy suuxat ba tey jii moo waral suñu ay tànki sëriñ Moustapha fii tey ànd ak njabootu sëriñ Baara gi yëpp ndax sëriñ Basiru digganteem ak sëriñ bi képp jar na. ñu àndandoo def lii ñu def ndax juróom-ñetti at yi mu fi nekk yëpp daanaka mën nañoo wax ni euh, lépp ci lépp la ko jiital mu yaatal ci ñëpp itam di ko dox na mu ko waree yaatal ci ñëpp bi mu ko wanee bi ko sëriñ bi wanee ginnaaw it terewul muy nemmeeku njaboot gi di leen xool ñoom itam ñuy ñëw ci moom di ko nemmeeku kon nag sëriñ Moustapha dafa wax ne loolu dong jaroon na njaboot gi yëpp àndandoo ñëw. waaye rawatina sëñ Abdou ak sëñ Baara waaye rawatina diggante njabootu sëñ Abdou Khadir ak ak ak ak sëñ sëriñ euh, Bassirou Mbacké maa ngi lay nuyu ci turu Cheikh Mouhamadul Moustapha ak euh, moom mi nga xam ni moo fi nekkal Cheikh Mouhamadul Lamine nekkal fa it sa wayjur wa sa xarit ba. sa lépp di Cheikh Sidil Mokhtar ñëw na ànd ak mboolem njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine ci bisum boppam di bisub Cheikh Abdoul Khader ànd koog yow <coughs> ak mbooleem njaboot gi yëpp di la nuyu nuyoo lislaam bi gën a sell di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di feddali bu baax li nga xam ni moo doxoon sa digganteeg way juróom wa di Cheikh Sidil Mokhtar taxawaay mu rafet bi nga xamante ni taxaw woon nga ko lu jiitu muy nekk xale général de mourides waaye itam bi sunu boroom dogalee mu nekkal fi sëñ Touba talatoo sa bopp sëñ Touba rekk nga tal yoon wi rek nga tal gunge ko ci liggéey bi <clears throat> ba mu yóbbu ko fu kawe njort te loola sa loxo sam xel sa xalaat mosu cee génn waxtu wu nekk yaa ngi koy gungee ci loolu yi <coughs> bis bii nag di bisuub euh, sëriñ Abdul Xaadar Mbàkke ku ne xam ko ku ko tudd tudd sëñ Touba ku namoon sëñ Touba ku ne wala nga daan ko dégg te gisoo ko boo gisee jëmm si Abdul Xaadar ci jëmm ji ak ca melokaan wa mel na ni gis nga si Ahmadou Bamba euh, dara ñoru ko woon lu dul li nga xam ni ca la nekkoon te doon ci soññee waxtu wu nekk muy al istiqaamatu <coughs> te istiqaama boobu sëriñ Touba ci boppam daan na ko ñaan sunu borom xëbli istiqaama fo boo demee ci mbind si Ahmadou bàmba loola ma ca te sunu borom dafay wax ni gëm yàlla képp doyul faaw nga gunge ko. ak al istiqaamatu soog caa mën a amee la yàlla di maye inna la si na xaalu rabbuna allah sunu borom lu mu ca teg suma staqaamu <coughs> kon istiqaamu boobu yi nga xamante ni sëriñ bi ci la nekkoon ci la doon yar taalibe yi yar ci njaboot gi daan ko doxe daan ko waxe bis bu mel nii bu bisam dellusee xel yëpp dana dellu ci loolu kon ñu ngi koy fàttaliku di ko fàttaliku bàyyi xel ci loolee mu nekkoon muy jaamu yàlla ak liggéeyal sëñ Tuubaa ak yar njaboot gi ci diine leen bàyyiloo xel sunu borom loolu ku ñëw ci bisam sa xeer war naa dellu ci dellu ci loolu <clears throat> sëñ bi mu ne mu ngi koy fàttali mboolem taalibe yi euh, bisub nituk yàlla boo ci ñëwee war nga am loo ci jëlee la nga ciy jëlee nag mooy la mu nekkoon nga jéem koo xam jéem a roy ca loola te sëriñ Abdul Xaadir ku ko xam xam ci loolu rek la nekkoon lim doon nekk nekk nitu sunna ak bi rek a ko ñoroon ci Serigne Touba euh, boo gisee bu masaan di julli bu demee ba sëlmal daf daan wax ni julli de moom mi ngi yem ci miimu kum jëca asalaamualeykum waaye boo seetloo ci image yi nga xamante ni moom la daan jiite ci jumaa ji waxtu wu masaa sëlmal ba ni asalaamualeykum ci wetum ndeyjoor iltifaat bi muy def ci wetuk ndeyjoor la koy def waaye taxwilul jalsa mi ngi koy def ci wetuk càmmoñam ndax loolu li ko waral fi barabu sëñ Tuubaa bi nekk boo ko nattalee ak mihrab bi ci wetuk càmmoñ gi lay lay lay féete moo tax su su masaan sëlmal ba génn ci julli gi moom buy dax buy buy soppi jataayam day wëlbati ko ci wetuk càmmoñ loolu am na ku ma wax ni ma moom moo ko ko leeral ni ko julli moom ci salaamu asalaamaaleykum ca la yam li ci des nag suñu digganteeg sëriñ bi la moo tax fu mu sëlmalee day wëlbati ku ci wetu càmmoñam jàkkaarloo sëñ Touba teg ca ni loolu li ko waral mooy sëñ Touba de su ko wan ginnaaw noonu la daan doxee boo seetloo band yëpp boo ko ci xoolee loolu nga cay gis kon nag ab taalu bi dëgg la woon ci sëñtubaa daan ko doxe boole ko sunna su wér péng kon bisam bii bu dellusee képp koo xamante ni yaa ngi fiy ñëw na nga lëkkale ñaar yooyu muy muy muy muy muy diine akuk taalibe day ñaare baat yu luy lenn kon sëriñ euh, Bachirou sëriñ bi mi ngi gën a feddali li doxoon sa digganteeg sëriñ Sidil Mokhtar ak li dox sa digganteek moom mii ci boppam ak li dox sa digganteeg njabootu sëñ Baara gépp ndax kenn ku nekk xam na ni kër gu ne am nga foo ko teg waaye kër sëñ Baara de moom gëm nañ gis nañ bu wér ni am nga foo leen teg te yàlla rek tax ngir ak jëmmi sëñ tubaa ak jëmmi sëñ Sidi Moxtaar mi fi nekkoon te nekkal fi sariñ Touba loolu kon ñu ngi koy yeesalaat ci yow di la wéttali ci bés bi di ànd ak yow bés bi di la sago di sagoo sa taxawaay ñu ngi sant bu baax maa ngi balu ak ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Moustapha ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la siyaare ci bis bi ñu bokk. di teg nuyoo bi ak siyaare bi ci sa loxo nga jàll ko ci sa mboolem sarak yu tedd yi nga àndal ak sa doom ji nga àndal di bég bu baax a baax ci dikk gi ak ni ngeen àndee ñun bis ni ko sëriñ Modou Baara waxee léegi daanaka mu ne si dolli ndax li ma waroon wax sax ay waxam yóbbaale na ko kon sant rek lay doon ak gërëm. ak wane suñu mbégte ci lii wax naa ko suñu Cheikh Baara biig ci guddi ci Cheikh Sidi Muxtaar ndax moom yàlla dafa def day jëmm joo xam ne kenn mënu ko fàtte kenn du ko fàtte ndax jëfam ci suñ Tuubaa kenn du ko fàtte ngir jëfam ci réew mi waaye nag man mun moo ko fàtte ndax sama digg ak moom ndax li ma séddoon ci boppam dafa ëpp waxuma ne dafa dafa dafa dafa dafa mel ni ma ko séntu waaye dafa ëpp kon waxtu ne suñ xeele suñ xeele ci moom ñu di ko fàttaliku ci suñ xol di ko fàttaliku ci suñ lépp di la ñaanal yow itam jataay bii nga tooge tey ndax eh, toogee woo rek jataayu Cheikh Sidi Mokhtar dangaa toogee jataayu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara kon moo tax wax naa la léegi ne la fii nga war a toog ndax dangaa toogee jataayu mag. kon loolu buñ la gisee rek loolu lay njëkk seen ci yow te Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ab cëram ñëpp xam nañ ko li ko Sëriñ Tuubaa defal ak li mu ko beral tam ñëpp xam nañ ko ndax doy na ci sëkk rek koo xam ne yooyu soo ñeent fukki at te ba nag ni buñ la tuddee deemeel yaa ngi ci kaw àdduna amut genn fànn goo xam ne lu mu waroon a jëf la loo xam ne fan wu gàtt bi feeñ na ca kon moom ku teeloon a xam li ko taxaru ju la waaye teeloon xam fi mu jëm teeloon xam li mu nar a bàyyi waaye da ko faggu yéen ñi itam mu faggu leen ndax bu doon li ñu ma natt cim xel rek ku fi teel a bàyyi ko noonu sa njaboot duñ war a mel nañ war a mel waaye yéen ci njabootu njaboot gépp gis ngeen lim leen faggul kon loolu del si dellusiwaat kon ñu ngi ñaan bu baax jataay ñaari jataay yi nga toogee te jataay boo di tiim jataay bi ci des yàlla na yàgg lool. te nga yàgg ko ànd ak sa rakk yii nga xam ne ñoo topp sa ginnaaw te ñoom itam ma xam ne yéene nañ la ko ndax daf ñu yéen la ko moom saw doxin la doxin wi itam toogoo ba sëriñ bi bàyyi ko fi rek ngay seet noo defaree sa digg ñoom la borom saam seere woon ci ku baax ki ne kii lañ fi dajale jekkiwut ba dajal leen door a seet mu leen di yore waaye itam sa digg ñoom waaye nii nga ànd ak ñoom rek bi sëriñ bi di nekk noonu nga daa ànd ak ñoom dara dolli ko ci te yow itam yàlla defal na tawféex moo tax ñu ñu dallum xel ci yow suñ Cheikh wax nañ ci lépp ñetti fan sa sa dëggu rafetu xol mën a muñ bëgg àdduna te loolu bokk na ci li ñu gën a séntu ci kilifa ndax suñ Moussa ku ko topp ci ak woyofam boo yeexee da nga ko woyofal ndax soxlawul dara. bëggut dara itam lu nit bëggit mën la ko bàyyi loolu nag eh, kilifa gu mat kilifa koy def kon sa waajur wa fàggul na ko waaye sa maam ji itam fàggul na ko ndax jotaay boo ko toog fa yumbut ndax eh, la daloon sëñ Modou Baara dalaat na mooy yaa njëkk doon ci setaat yi ku ku toogee jotaay bi doomu sëñ Tuubaa loolu kon jotaay bu rëy la boo xam ne ñu ngi lay ñaan yàgg. ba li nga yéene liggéeyal Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ci biir këram gi suñu borom kàttanal la may la gudd fan may la wér ba lépp nga àggale ko li nga war liggéeyal Cheikh Sidi Moussa ci biir këram itam yàlla dimbali la ba lépp nga mottali ko li la xamante daal sant nañ la bu baax gërëm nañ la sa njaboot gi itam ni ko suñu Modou Bara waxee rek li ma seq ñoom sant naa leen bu baax mëneesut nag di tudd kenn par kenn waaye ñoom itam cër bi ma jox ak fonket gi ndax kër ga kenn des fa ba tey yow itam lii nga def boo action woon nuyoo demit mu doy ndax jataay bi nga toogee leen dee xoole waaye lépp itam eh, sóor ci sama digg ak sëñ bi ak xam sëñ bi cofeel ak yërmande ak fonkeel gi amoon sama moom nga def ko diiru sëriñ bii di fi nekk itam yàlla defal na la tawfeex da eh, danga daa wax ne eh, fii ma toog toog naa fi ba mu juróom benn fukki at ak nangam te mosuma dugg ci mbirum sëñ bi kon ak xilaafa du ma ci tax dugg yow yàlla teel naa dim loolu dégg naa ko ci lu ay yoon yoon lu ma saxew itam bu nit dikkee wax na la waxal sëñ bi nangam ngay leen sëñ bi day sama kilifa di sama sëriñ yar ma te ñemewu ma ko kon dama koy diglu nag kon loolu yàlla defal na la ci tawféex defal na la ci ndimbal moo tax mu waajal la nga attan yéen bi ñi nga bokkal sëñ Tuubaa itam di say waajur kenn ku ci ne wéet naag moom dégg mu seereel la seere soo xam ne doon sëkk kon ñun dañuy dañ lay sant bu baax di la gërëm di fàttaliwaat suñu digg ak bi ci yow ndax sëriñ bi kat lebal nañu loo xam ne mënuñ ko ko fay sëñ Abdou nag dafa jàngale ne bor boo mënta fay moom loo am sànni ci rek kon ñu itam noonu la ñuy doxalee suñu digg ak moom ndax euh, waxuma la sax euh, cëral gi waaye jàpp xol gi ñaanal gi ak yërmande ji rek kenn mënu ko fay. la ca deset ak doyloom xoolu ci man dara ndax bu xooloon ci man gis ko kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ñaanal njaboot gépp nga xam ne yaa ñoom yenn ànd ñoom itam ñu yàgg topp sa sa ginnaaw ba euh, liggéey bi fi nga ko bëgg a yóbbu yàlla na la ba nga yóbbu ko fa moom daal na nga xam ne suñu xol sedd na suñu yaakaar ngi doole ko waxtu ne amul dara loo xam ne itam mi ngi ñox ñox ji suñu biir xol loo xam ne lu ngeen war def te defu leen ko muy ci diiru sëñ bi di fi nekk ak ginnaaw xàmmewu ma ko diiru mu fi nekk lépp lu ngeen ma war a sedd cib cër dara desu ca dara dara dara desu ca dara manqué wu ca lépp loo war sedd dara desu ca kon nag day mel lu ci des ci man la des kon mooy itam yàlla na ma yàlla dimbale ci barke Sëñ Tuubaa ba matarik doomu aadama bañ maa topp ba mooy itam li may yéene ci war koo def sëñ bi ci taxawu ko ci ginnaawam. yàlla dima dimbali waxtu di leeral sama xel ba duma ko jàdd mukk asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa allahu rabbul alamin laay tàmbalee man mat lamin julli ci xayril alamin tey tagg ji ilimaan allahu rabbul ji ay mbiram lu néew nu tuut li ci xam xooma asaka